li ñuy waxtaan yow nag yéen mu du lu gudd mooy da rek mbas mi nga xam ne moo am ci réew mi te am ci réew yëpp nag te mbas bu amaal daanaka diina da ci am kaddu kom ni ci àddina di amee kaddu kaddu waa àddina ak médecin yi ñooy e, wax digal ni ñu wattandiku digal leen ñu wattandiku digal leen ñu góor góorlu digal leen ñu topp rek ni nga xam ne moom la docteur yi di digle te mu jógee ci président de la république mu njëkk koo def di gërëm kon nag ki nga xam ne mooy président Macky Sall diñ koy gërëmee sax arab dañuy wax naan la shukra ala wajib nit bu defee li ko war waruñ koo sant ah kay war nañ ko sant ndax am na koo xam ne li ko war defu ko kon nag ko def li la war war nañ laa gërëm kon nañu gërëm président de la république El Hadji Macky Sall ci taxawaayam ci li nga xam lépp loo xam ne xew na ci réew mi muy lu neex wala lu naqari mbas mi nag euh, mu ngi mel ni euh, mbas yàgg naa am ci àddina waaye mbas mu mel nii nag moom mu ngi door a am ci taarix ci histoire ndax mbas daana am jamono yenent bi daana am ci jamono yi eh, xulafaawul arba saxaaba yu mag yi maa ngi ci jël sax benn mel ni mbas moo xam ne amoon na ca Cham Cham bu ko waxee mooy Syrie ak la ko wër ak yi noonu <coughs> mbas moomu ba mu amee Omar ibnul Xattaab daf ne woon bu mbas amee bu kenn tukki jóge fa dem waaye bu kenn ñëw itam kon loolu boo déggee ñu ne tëj nañ ay frontière nga xam ne loolu du lu yàgg woon fu mbas am rek dañu war a tëj bu bu fi kenn jógee génn dem ndax mën ngaa ko yóbbaale waaye bu ñu recevoir kenn ku bees kuy jógee feneen ndax mën nga ko indi yokk ko loolu nag euh, li nga xam ne moom la ci imam yi di wax mooy feddali rek li nga xam ne président de la république wax na ko te digle ko ak li nga xam ne médecin yi wax nañ ko te digli ko mooy wattandiku bi ak góor góorlu bi ak set gi ak lépp li ñu digal ñu def ko wax naa ne euh, fii ma toog nii euh, ci bureau imam yi l'association de imams et ulama du Sénégal kàngamam yi nga xam ne ñoo di ay borom xam-xam ñu ngi fi maa ngi wax leen ni cheikh oustaz alaaji Tahir Fall mu ngi nii euh, naka noonu oustaz alaaji Muxtar Ndiaye mu ngi nii al oustaz alaaji Ousmane Sarr mu ngi nii ak al oustaz alaaji Omar Diène mi nga xam ne mooy su suñu secrétaire bi ñuy tënkal mbir yi li ñuy wax moo di ne <clears throat> mbas am na ci wàllu diine ak àddina àddina dox na lim ciy dox yépp mën a mënatu ci dara tey du Sénégal rek monde bi yépp mënuñ ci dara mbir la mu jógee ci yàlla kon nag li ci kàddu diine mooy nañu déglu boroom xam-xam yi màcc ci wàllu docteur ak faj waaye nañu déglu itam diine li nga xam ne moom lay sant doom aadama yi mooy nañu muñ nañu set na ñuy dégg ndigal nañuy bàyyi ay tere ñun nag yàlla daf ñoo nattu suñu peuple wax dëgg nañ ma baal peuple bu dëgër bopp lañ digal leen dara ñu def ko yombut tere leen dara ñu bàyyi ko wax dëgg yombut nag même boo ne takk leen ay masque da ngay da génn ci mbedd mi doo gis kenn du ko takk mu mel ni rek ñoom dañ du dégg wala boog ñenn ñi sax naan duul dëgg dañuy fen ak nangam nangam naa ak politique la ñu leen di xamal ne lu am la ndax bakkan yaa ngi dem ci loolu feebar baa ngi ci dëkk bi kon nag il faut ñu jéem a moytu wattandiku loolu la lislaam euh, digle bu ñuy ñëw ci julli ci julli si ci jàkk yi kenn ku nekk na jàppee ci këram bu jàppee ci këram ba set mun na ñëw jullisee buy ñëwit it na andiwaale sujaada bi nga xam ne moom lay ñëw jullisee bu paree mu lemaat yóbbu sujaadaam ñu koy ñaan bu fekkee ne amul gel mu laal gel hydroalcoolique yi balaa muy ñëw wala bu ñëwee tamit na ko fekk ci jàkk ji mu laal ci balaa muy dugg ci jàkk ji ñu ngi ñaan ñi nga xam ne dañu yore jàkk yi ñu tëj li nga xam ne mooy toilette ndax benn soto la bu ci fukki nit di jàpp dañ koy wàllante kenn ko nekk na jàppee këram te toilette yi ñu tëj leen ku ñëw rek julli dem ñu ñaan tamit yi nga xam ne ñoo yore jàkk yi ñu def fa ay citerne yoo xam ne day am ndox ak eau balaa ñu dugg ci jàkk yi ñu raxasu bu ñu jógee ci jàkk yi bay génn tamit ñu raxasuwaat dellu seeni kër bu ñu amee gel bi moo gën ñu ñaan nit ñi tamit bu ñu mënee am ci jàkk ju nekk benn thermoflash pour ñu natt ci benn volontaire di ko def ku ci xam dara nag ba muy dimbali nit ñi ndax ku ku dara jàpp ñu ne la bul dugg emal fii wala feebar bi daf na la wala sa température wane na ko nga dem jege ji docteur yi ñi nga xam ne ñoo ci xam dara ñu lijjanti say bos. ñuy ñaan nit ñi kenn kuy ñëw nag fokk mu takk masque ndax masque bi dafa obligatoire ci nit ku ne mu takk ko indiwaale ko buy dem tamit yóbbaale ko na muur bakkanam na muur gémmiñam ndax feebar bi foofu lay jaar ci nit ñi. kon nag ku xam fi nga xam ne fa lay jaar tëjal bunt bi bañu bañ ba mu bañ a egsi si yow ñu ne nag nit ñi tamit bu ñuy jullisee nañu dox ci seen diggante un mètre cinquante kenn ku nekk bu mu nee nekk deux mètres baax na mais un mètre cinquante au moins mu nekk ci diggante nit ñi ñu mën a ñu mën a moytu ndax sa feebar bi ni muy wàllee ci sëqët la ci tusooy li wala ci tuf li ñu ñaan nit ñi tamit bu ñu jullee ba pare ñu génn ci jàkk ji bu ñu nuyoonte soxlawul ndax ku gis sa nit rek say bët nuyu na ko kanam goo gis rek nuyu nga ko bañ fonante fóonante maanaam bañ lëngunte tamit ndax feebar bi day jaar ci lool te dafa yomb wàllaate kon nag yooyu la ñu doon wax di ko diglal nit ñi ci diggalu Alaaji Moustapha ñu yeesalaat recommandation yooyu mu delluwaat ci nit ñi pour nit ñi fagaru ndax feebar baa ngi fi te fi muy wàllee wax nañ leen ko li nga xam ne mooy tax ñu mucc ci wax nañ leen ko nañ ko sàmm def ci suñu kéemtalaay kàttan ndax jaaroon na fi ba ñoo xam ne gañe woon nañ ko presque waaye dellu siwaat na kon nag bu ñu wàccee suñu loxo nañu delluwaat ca la ñu nekkoon mooy fagaru moo gën faju salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.